asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen dalal seen YouTube seen bi nga xamante ni suñ chaîne la ñu ñëpp muy seenu partage nga xam ne am na si yu bëri yoo xam ne sax parfois dinañ ko fi joxe nga xam ne ay euh, ay abonné ñoo ko fi joxe ñoo may jël si suuf wala envoyé message WhatsApp na ma lii dugal ko si groupe bi si WhatsApp bi euh, dëggal sax si YouTube bi comme sax ñëpp mën koo bokk. moo tax tey incha allah ma ñëw jox leen secret bi nga xam ne daanaka ku baax moo ma ko jox yéene ma ko pour ma indi ko séddoo ko ak yéen surtout si couple yi nga xam ne mi ngi ñu ngi nekk si ay jafe-jafe jëkkër ak jabar yi ñi nga xam ne ñu ngi nekk si yoonu sëy sëy bi yéex wala parfois diggante xaw a ñege si moo xam jëkkër ak jabar moo xam ay frère moo xam itam ñi nga xam ne dañoo nekk ak seen patron wala nu mu mënti mel daal léegi lii wàllu mahaba lay wax maanaam wal xeetu aleyka mahabatin min xam ngeen ne loolu si wàllu mbëggal si lay dox cofeel diggante bu neex bu ko defee incha allah loolu laa fas yéene tey indil leen ko euh, expliquer leen ko ni ñu ko war a defee waaye nag ngeen ni jëfandikoo secret yi comme ni ma leen koy faral di waxee toujours si lu neex yàlla li leen di jox ni yëpp dimbalante ay yéen moo ñu si tax a jóg dégg nga parce que jaamu si la lépp xaj u jaamu amul moom daanaka dara du dox kon góorgóor la ngeen koy defee si anam yiw sell kon mbir mi mi ngi nii mooy da ngeen bind wàll xeetu aleykum mahabatan bu ko defee juróom ñaari yoon ngeen koy bind ñaari mim moo fi nekk mimu mahabba bi si ngay bind yow sa tur mooy ne sa kaw tur ki nga bëgg si suuf léegi mimu mini bi nag si ngay bëgg li nga bëgg si nit maanaam sa sa sa sa yéene ak sa soxla si nit moom ngay bind si mimu mini bi maanaam bu ko defee kon da ngay am juróom ñaari wal xeetu alek ma bati mini yoo xam ne bu si nekk rek yaatal nga seen mimi bind sa tur si premier mim bi ak ak tur ki nga bëgg si suuf sa tur mooy ne si kaw moom turam si suuf miim beneen bi si topp nag mooy nga bind seen sa bëgg-bëgg li nga bëgg ci moom soo paree na nga tëj ko nga def ko saafara jël benn sondel bu weex bu ko defee nga jël sondel bi ñaan ci sa soxla sa diggante ak kooku dugal ko ci biir euh, saafara bi bu ko defee na nga bàyyi ba sept jours maanaam juróom-ñaari fan huitième jour bi mooy juróom-ñetteelu fan bi nag bu ko nga génnee sondel bi bu fekkee ne gis ne maanaam caas bi fi nga xam ne moom la ñuy kos mu tàkk dafa tooy da ngay bàyyi ba ba mu wow bu ko defee nga taal ko boo koy avant nga koy taal da ngay ñaan sa bëgg-bëgg dégg nga su ko defee itam nga jël euh, almet kos ko taal ko su ko defee incha allahu rabbi diggante boobu nag dina neex dina am jàmm dina am tawféex te di ngeen ne si jàmm ak salaam bu neexee yàlla suñu borom te bu leen fàttee parfois ngeen na ma parfois da ngeen def ay secret yoo xam ne du ngeen si gis résultat mais bind bi tam da siy joué booy bind tam foog nga xam ne ngay bindee te alxuraan du nu la neex rek nga koy bindee du ku ku nekk itam moo ko mën a bind ndaxte balaa ngay bind yooyu foog nga set sell foog nga am ijaaba loolu da ngeen koy bàyyi xel ate alxuraan la nekkul fétis nekkul lu ñuul nekkul dara alxuraan la kon nag da leen koy teg ci yoon teg ci yoon saatu mustaqim ñi koy bind itam lu ñu koy def ñu seet seet la lii nekkul loo xam ne lii suñ mag ñi suñ maam yi moom lañ doon def te dañ ci doon gis ay natija te ñun ñi itam parfois lu ci gën a bëri dañ ko ay nit ñu gis ay natija lu ci gis ay résultat kon nag tey loolu laa leen indiloon ñu ngi yem fii dina waa asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu bu suba ak jàmm